tay ni li ñu def ni moy signature de convention de partenariat bi nga xamné am gouvernement bi am na ak euh, secteur touristique bi ak secteur euh, aviation bi nek na lo xamné lu am solo la bokk na tam ci ay feussel yi nga xamné ñong koy feussel ne dañu bëgg Sénégal profito ci euh, mbass mi nga xamné mo song adina fexe ba au fond limu metti metti mu jig ñu jigé nak moy mooy bu na xadi neexul waane day yété yéete bi mooy dañu gën a fagaru gën a dugal suñu loxo ñëpp ci euh, song maanaam bërëbu xëy yi pexe ba entreprise yi taxaw fexe ba lekk euh, liggéey yokk daanaka nag lii ñu dugal ci secteur hôtelier bi dugal ko ci secteur transport aérien day firnde rek ne incha allah Sénégal dina ci gën a siggi gën a indi ay bërëbu liggéeyukaay gën a indi tam lu taxaw loo xam ne day tax ay touristes ñëw si réew mi ni mu gën a bare. di gërëm bu baax a baax. Euh, bank yi nga xamne ne ñu ñuy gunge ci mbir mi ndax effort financier bi nga xamne def nañ ko ñom dañ koy fulandi danaka buñu duggé ci ñom ñoom naanaam effet levier lay am levier moy bante bo xamne dang koy duggal ci koñ yëkki mu jóg def na ne lolu woné na ne bank yoy tam banku réew mi lañ won nañ ne maanaam kay bi ben la def na ne dal li ñu bu sottee inshallah xëy dina am liggéey dina am tar ak tawfiq dina am